fas yéene dikk ak yéen ci seen xikmatul yow mi bi ñu leen baaxoo andil bis bu nekk ci kàttanul yàlla ak ndimbalam ak tawfiqam seen mbokk Saliou Sy di leen ko defal tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci sunu yaakaar Serigne Touba te mooy wéyale soññe yi ñu doon def fan yi ci solo xam-xam ak eh, yitte ji nga xam ne nii Serigne Touba sunu yaakaar joxoon na ko xam-xam ak eh, soññee gim ci soññee ak digle gim ko digle ñu dem sàkku ji ko Euh, xam-xam dafay lu mënta ñàkk ndax bu ñu xoolee lislaam it bu kenn masaana ñëw dugg ci lislaam la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di njëkk wax ca moom mooy faqihu aqaakum haza fi diin jàngal leen seen mbokk mii diine yee leen ko ci diine kon jàng dafa mënta ñàkk daa mënta ñàkk bu ñu xoolee xare xare ba dara yi yi ñu jàppoon ci xare ba Euh, te ñu doon ñu bari joo xam ne dañoo doonoon ay jàngkat yu mën a jàng bokk na ci condition yi yañ leen tegoon ne ku ko ci lam ku ko ci remplir ñu libéré la mooy nga jàngal nàngam ci jullit ñi bañ fer ijji ba mën a liir nga xam ne ku ko def ñu doog laa libéré ci Madina al Munawwara kon xam-xam lu ama am solo la lu mënta ñàkk la tamit ci lislaam moo tax Serigne Touba sunu yaakaar soññee ci bu ñu demee ci irwa un nadim téereb Cheikh Mamadou Lamine Diop Dagana euh, am na mbind mu fa Sëriñ Tuubaa ay laabire yoo xam ne nii ci murit yëpp la ko jëmee yu góor yi ak yu jigéen yi bu ñu demee ci irwa un nadim page 33 dañu fekk Sëriñ Mamadou Lamine Diop Dagana di andi mbindum Sëriñ Tuubaa di wax ne innahu minni ila jamiil muridina wal muridaat salaamun tayyibun ya'simul jamii'a minal maridiina wal maridaat wa yudxilal jamii'a fi salaamati wal aafiya fi dunya wal aaxira bi jaahi rasulillahi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wa barak amma baadu fa inni amartu kulla man taallaqa biya li wajhillahi taala alkarim bi taallumi alxaqaidi wa tawxidi wa axkaami altahara walsalaati walsiyaami wa xayriha min kulli ma yajibu ala kulli mukallaf wa inni takallaftu lakum wa lakunna bi tawaali fa yakunu fiha jamiu dalik li wajhillahi taala alkarim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh daf caa wax ne lii mi ngi tukkee ci man Serigne Touba mi ngi jógee ci man jëm ci mboolem murid yu góor yeeg yu jigéen yi maa ngi leen di nuyu nuyu bu teey di leen ñaanal yàlla musal leen ci pexe yi marit yi muy fetteerlukat yu góor yu jigéen yi te it yàlla na leen yàlla tàbbal ci jàmmam ci aafiyaam àdduna ak alaaxira ci daraja yonante bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw nuyoo bi ak ñaan gi nag maa ngi digal képp ko aju ci man ngir jëmmi yàlla mu xam lu ji ay farataam li nga xam ne ni mënu koo ñàkk xam mu xam ko lu jëm ci wàllu tawxiid ak attey laab ak julli ak koor ak yeneen yurut yooyu te mu aju ci lislaam ci lépp loo xam ne mu kàllaf da ko war a xam maa ngi diggal ko aju ci man mu xam lu ji ko daal ne man nag war warlul naa leen yenn murid yu góor yu jigéen yi ay taalif yoo xam ne ni da ngeen ca fekk yii yëpp te loolu def na ko ndax bu ñu xoolee fukki téere yi wala fukki téere ak benn wala juróom-ñeenti téere niñ koy waxee ay tasawuru sixaar ak subbaan nax joog jawhar nafiis ak ak yooyu yëpp euh, darañ ca fekk xam-xam yi mu wax yëpp mu doy ca sëkk kon moom la mu waxoon def na ko kon ñun ñoo ci des kon nag nañ farlu te dem jàngi te xam bëggu Sëñ Tuubaa ñu koy def ñëpp mënuñoo doon ay kaang waaye nag kenn ku nekk war ngaa mën a fer i ba mën a liir alquran ñëpp mënuñoo doon ay fóore waaye kenn ku nekk war ngaa jéem a dañu ko réer ci xam-xam ci farata yi nga xam ne ni yaa koy defal sa bopp bu ko defee nag am na ñoo xam ne moom Eh, ay benn benn ñooy géeju ci xam-xam doon ay géej lu waaye xamut laaj la waaye nag am na loo xam ne ni kenn ku nekk da nga ko war a xamal sa bopp nga xam ne ni mooy le minimum lu mënta ñàkk kenn ku nekk war na ko jéem a xam kon nag nañ góor góorgóorlu te farlu bu baax a baax ñoo ngi siyaaraat ñëpp di talalaat loxo ñëpp ci liggéey bi nga xam ne nii waa daara xikmatul mi fas nañ ko ñoo ngi koy fas yéenee gën a liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci lépp jëm ci xam-xam eh, jàng ak jàngale Euh, te wax dëgg yàlla am mbokk yi ci tàmbalee dugg ak di ci jàpp itam ku ci bëgg ay leeral it nga woote ci 77 633 77 56 77 633 77 56 xikma nag day tënku yaa koy tinki ngir jariñoo ci rajo day sekki moo tax ma naa wuy la te wuy balaa jariñ nga toj ko jot ca buy ba buy baa lay jariñ kon wuyu wi ñëw na gaañi leen toj ko bañ mën a jot ci wuyu bi ñëpp tiim ko ñii màcc ñii notari ñii njëmbaan ko ku féete woo naa seggal ko in uridu illa al islaaha ma stataxta ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa taala wa barakaatu أعوذ بالله من الشيطان في كل موضع وفي الأوطان بسم الإله وهو الرحمن وهو alhamdulillahi wasalla abada ala alladi bihi lana alhuda abada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawi nawalil wali laqil lisaani waxlulan min hulum qad wajalhu dakiran wa shakiran abad wajal kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaana alxikam faliyaha bil mustafa xayra shiyam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk daara ja waa at bi ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di beral nu yokk siyaar waa daaray xikmatul yawmi numéro 1 ak numéro 2 ak numéro 3 fas yéene dikk ak ci seen xikmatul mi bi ñu leen baaxoo andil bés bu nekk ci kàttanul yàlla ak ndimbalam ak taw xam seen mbokk Saalihu Si di leen ko defal te ñu fas yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci sunu yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasuul te mooy wéyale soññe yi ñu doon def fan yi mu jëm ci wàllu solo xam-xam ak ahamiya bi nga xam ne nii maanaam yitte ji nga xam ne nii Serigne Touba joxoon na ko xam Euh, lu bari ci murit yi boo leen laajoon lu njëkk war ab murit ab murit lu mu war a njëkk a def dañ naa la jébbalu sëriñu murit yi de moom waxut loolu dana lu njëkk a war ab murit mooy mu xam ji mbirum tawxiidam naka lay wéetale yàlla ak naka lay xamee yàlla mooy kan ba du ko ba du ko bu noppee mu xam ji mbirum fiq maanaam naka la ñuy jaamoo yàlla gannaaw bu xamee yàlla li yàlla digle naka lañ koy defee ba mu baax bu loolu noppee nag mu doo ko jébbalu ci ab sëriñ ngir dox wuti yàlla moo tax mu ne awalu waajibin alal muridi taxsilu zaadihi min at-tawxiidi wa baxdahu taxsilu maa yusaxihu bihi furud al-ayni fi ma saraku wa baxdahu yasluku indraamal wusul ala yaday mukammilin yaxfur rasul moom sëriñ Tuubaa it wax na ne képp koo xam ne sànq nga xam-xam ci sunna ak ci farata nga xam ne ne yow daal xamloo woo dara looy toppee farata ak looy toppee sunna da ngay këndëng-këndëng nii rek di dox nee na ku réer nga te ku réerale nga te it suñ borom dana ko defante yow bu ëllëgee fa kullu man dayaa man bi sunan wa bi faraida wa yartajil minan fa wax su dalaali wal idlaali jazaauhu intiqaamu jël jalaali ci ay soññeem wax na ne bokk na ci pexe seytaane muy dëddu gi lenn ci taalibe yi dëddu xam-xam nga xam ne ñoom xam-xam joxuñ ko yitte ji ñu ko war a jox sonnuñ ci itam ba lañ ca war a am ñu am ko wa min makaayidi la'ini l mujrimi saddul muridina ani ta'allumi kon loola kenn ku nekk war na caa daaw a bokk ñu bari nag dañuy naan sëriñ Tuubaa ay mbiram nekkul ci téere waaw fala takun an xidmati bi faatiri dëgg la sëriñ Tuubaa ay mbiram nekkul ci téere waaye lim lim ñu digal ak lim bëgg ñu def ko ak lim bëgg ñu bàyyi ko loolu moom mi ngi ci téere yi te bindal nañu ko kon nag bu ñu nax suñu bopp am na ku mas a jébbalu ci moom te kooka mag la mu ne ko maa ngi lay digal loo xam ne nii day lu bari ci fere yi digal naa leen ko defuñu ko waaye yow na ko def te mooy na nga jàngi dala ko yebal ci maam Cerno Ibrahima Faadi mu koy jàngal kon kooku xam joxoon na ko yitte lool ndax nee na mu kàllaf dafa araam ci moom muy def dara te xamut lan la ci diineem àtte kon bala ngaa def dara na nga jiital xam moo ne mbokk yi suñu mbir àdduna rek day bala ca kenn def dara da koy lijjanti ba maîtriser ko bala caa yàqule wala mu yàqal ca kenn wala mu échec ca kon nag mbirum yàlla rawatina moo tax day buñ demee ci jawharu nafis day wax ne wa fi'lu shay'in qabla an yaxlama ma xakama fihi mutlaqan rabbu sama mimma ala mukallafin qad xaruma qaddim ala ibadatin taalluma kon nag balaa kenn def na xam ndax dañoo araamal mukallaf muy def te xamut ci tasawur si xaar day wax ne képp koo xam ne réeree nga say farate te laajoo ko na nga xam ne tooñ nga sa bopp tooñ bu wér a wér man kaana jaahilan bi fardihi walam yasal fa nafsahu abada wa zalam mbokk yi kon nañu yeewu te bañ a tooñ sunu bopp te góor-góorlu te eh, xam li sëriñ bi bëgg ñu di ko def ñoo ngi eh, siyaarewaat ñëpp di soññ mbokk yëpp ci liggéey bi nga xam ne ni waa daara xikmatul yawmi ñoo ngi koy def ngir bëgg a yokk a liggéeyal lislaam yokk a liggéeyal sëriñ Tuubaa te lépp jëm ci at tarbiya wa taalim ci jàngale ak yare